Bonjour à tous, je suis marie louise Adiatouré, directrice générale de l'Académie Génération Foot. Alors, euh, nous avons organisé aujourd'hui, ce samedi 26 octobre, une journée de lutte euh, et de dépistage euh, pour le cancer du sein et le col de l'utérus, qui est une maladie qui fait assez de ravages dans notre pays et dans le monde entier. Comme euh, tout le monde le sait, le mois d'octobre est dédié aux femmes et à ces cancers en particulier. Donc l'idée avec euh, le poste de santé euh, Maditouré de Dini était c'était d'organiser une vaste journée consultation gratuite en effet pour les femmes de la localité, Denis et les alentours. C'est normal que nous avons fait le transport gratuit parce que nous faisons partie de DEN. Aujourd'hui, l'Académie Génération full se situe à Denis euh, le président Madi Touré se considère lui-même un enfant de la localité malgré le fait qu'il vient de Dakar. Donc c'est tout à fait normal que nous appelions sur nos populations parce que, comme nous nous sommes Nous avons organisé cette journée parce que déjà personnellement c'est une... Euh, c'est un geste qui me tient à cœur parce que dans ma famille, j'ai eu des cas de cancer du sein, des femmes qui ont été gravement malades et deux d'entre elles qui ont subi l'ablation mammaire. Donc je connais personnellement les ravages que fait cette maladie parce que je l'ai vécu. J'encourage toutes les femmes d'ici et d'ailleurs à être sensibilisées au dépistage précoce parce que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui et n'importe quand. Donc vaudrait mieux être sensibilisé et savoir du coup que c'est essentiel euh, de savoir déjà de connaître cette maladie et de savoir les risques qu'on peut avoir parce que du coup on peut subir l'ablation mammaire en gros gatam gàttam de la et on parle du cancer du sein mais il y a aussi le cancer du col de l'utérus qui touche des jeunes filles comme des adultes donc il serait bien de sensibiliser la population à massivement faire le dépistage précoce alaikum. Je Ibrahima Ibrahim laa je suis au service de santé la génération foot mais cette fois-ci nous avons donné la coordination avec le poste de santé pour l'organisation de cette journée d'octobre rose pour les femmes de Déni Cagnac et euh, euh, tous les environs. on s'est rendu compte que souvent les gens n'ont ñi accès de façon tardive ci euh, consultation surtout en ce qui concerne le cancer et que ñëpp xam nañ ni ba cancer mom buñ ko télé fajj euh, mëna na wër waaw yéex bi moy problème bi mais buñ ko télé fajj mëna na wër comme nak légui nit ñi amuñu accès ci yooyu yëpp bon on a essayé d'organiser cette journée pour des femmes de cette zone. waaw ñu ngi sant yalla rek bi nga xamé ne ñoom ñëpp wuyu si lañu quand même ba weesul sax ñi nga xamné mom lañu la donc voilà euh, yalla dimbalé nañu ba ñu def ko ci jàmm ak salam vraiment. Euh, nous sommes aussi euh, waa poste de santé parce que nous avons décidé d'organiser organiser journée bi avons ah, ba donc on a pu faire ça dans les locaux de Génération Foot aujourd'hui nous lañ ko euh, parce que aussi on a des locaux adéquats adaptés Nous ce indi ñu nous avons fait quoi 300 femmes qui sont déjà répertoriées Nous avons la moitié presque def nañ dépistage ensuite dafa am beneen particularité moo di ne ah, dañu ci boole vaccination HPV xam nga ne bon cancer du col en général jàngoro bi koy joxe papillomavirus le tudd. léegi nag euh, dañuy def vaccination pour xale yi nga xam dañu am juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent ñooñu bu ñu leen ko defalee mën nañoo mucc ci cancer du col de l'utérus donc loolu mooy euh, kii bi loolu mooy kii bi. Bon, ça concerne, papillomavirus, ça concerne particulièrement euh, le cancer du col. Donc voilà, ci la ñu nekk nii nag di ko di ko def waaw dañ ko boole ñaari activités yi parce que ñaari activités yi mën na ànd xale yi ñëw nañu macha allah yu jigéen ñi ñëw nañu macha vraiment c'est une excellente chose. asalaamaaleykum man Ndeye Thiaw laa tudd. man de ñëw bi ma ñëwoon fii en tant que jigéen dama ñëwoon fii pour saytu sama yaram maa ngi jógee ba Déni Biram Ndaw Sud doon saytu sama yaram dal ci walu cancer bi parce que feebar bi nek na feebar bo xamanteni ni mën na nekk sa yaram pendant des années do ko xam il faut nga dem def dépistage pour ñu mën diagnostiquer feebar maladie bi loolu mo waral ma ñew fi ah di lancer sama moroomu jigen ñep ñu ñew dépister wu parce que feebar bi nek na feebar bo xam ne dafay làqu fi mu lay fim lay sonalé phase terminale lay doon te bu boobaa fi ngay xamé day fekk mu wess motax tax ngi ñaan sama mbokk jigen ñep ñu ñew téwé ci bëss bi saytu seen yaram parce que la santé n'a pas de prix. ma di ñaanal ñi ñi initié li di ñaanal euh, Madi Touré mi nga xamanteni ni mo organiser li ak domam bi ñi wax mari ñom ñoo organiser li pour euh, dimbali jigéenu dëkk bi ñaari déeni fi ba kañak fi ba déeni biram ndaw ñep daal ñi ngi sante di leen gëreum parce que ku jël initiative bu toll ni boole jigéen ñëpp ñu ñëw saytu seen yaram yaakaar naa di nga ci am di nga ci am jërëjëf rek nga ci mën a am di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ci yàlla yàlla defal leen teraanga daal. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu population Déni Biram Ndao yëpp maa ngi tudd Julde Ba ma dem maîtresse sage-femme poste santé Déni Biram Ndao. Ah, bi dañ ko organisé poste santé Déni Biram Ndao en collaboration ak Génération Foot ñoo ko bokk associé ko ñoom ñooy suñuy partenaire dañu déplacé lieu bi andi ko ba fini génération foot journée yi dañ koy organiser depuis des années au niveau du district de au niveau tous les districts du Sénégal pour dépistage pour cancer du sein et du col maanaam dañu saytu jigéen ñi des seen pour prévenir le cancer bi def en même temps dañuy la vaccination xalé am 9 ans ba 14 ans parce que vaccination vaccin est noonu léegi dañ koy dugal programme élargi de vaccination pour les filles pour les filles nga xam les filles 9 ans ba 14 ans pour protéger contre le cancer de l'utérus. Je ne sais pas si jii fii des ay activités yoo dépistage cancer du col dépistage cancer du sein vaccination HPV moi, xale 9 ans ba 14 ans échographie mammaire ñu ngi ko fiy def ñu def frottis cervico-vaginal ñu ngi ko fiy def en même temps programme nañ pour def mammographie pour les femmes qui ont des des chiens suspects après dañ leen di enrôler yóbbu leen si benn clinique ñu defal leen ñu jël ko en lépp loolu lépp génération foot ñoo ko jël en charge maanaam bisu tey bi ñoom ñëpp lépp lépp lépp lu am rek ñoom ñoo ko jël en charge. yooyu daal lañ fa fas yéene déroulé tey jii ngi def ñu ngi dépister mais ñaanuñu yàlla benn cas ba nga xamante ne day doon cas ba nga xamante ne. cas bu kenn lii yëpp nag boo gisee ñu di ko def pour prévenir cas yi parce que tey jii nii bu fekkente ni ki teel nañ kaa dépister teel a xam li nekk ci moom même bu amee ay lésions peut-être cancéreuses dañ koy mën a teel a jël en charge en même temps bu ko defee dina mën a faju ba wér mais boo bàyyee ba egg benn stade bi fekk mosoo dépister wu foofu pour ñu jël en charge ba nga mën a faju ba wér day jafe mais bu fekkente chaque année foo déggee euh, dépistage te mois octobre bi dañ ko bañ dañ koy dépister gratuitement léegi comme foo ko déggee nag boo ko defi jeef bu fekkente am na ay lésions peut-être cancéreuses ñu teel kaa jël bu soobee yàlla yàlla mën na laa muccal ba nga wér si jàmm salaam. ñoo ngi sant fi mu nekk dañuy sant di gërëm dañuy sant di gërëm population Déni Birame Ndao yëpp ah même de commune Bambilor même ji yëpp même mais nag balaa ñoo commencé nag si ngërëm ji dañuy sant suñu médecin chef docteur Diouf di sant équipe cadre bi di sant personnel poste de santé Déni Birame ndaw gépp après na ñëw nag tey jii ni si waa GF ñu di leen sant di leen gërëm parce que mënuñu leen a fay parce que mën nañoo wax depuis 2000 14 man moom laa fi ñëwoon ba bi ma fi nekkee ba léegi gis naa génération foot ni mu dugalee loxoom si poste de santé dénn bi ndaw parce que mën nañu wax ak li fa nekk yëpp moo ko fa def équipé nañu jàppal nañu si ba si côté yëpp ñu sant tey jii nag ñuy sant directrice bi muy Marie mooy doomi Marie Touré directrice génération foot activité yëpp moom moo ko programmé pour ñu collaborer lépp mu jël ko en charge ñu di leen ñaan na fi ñu bëgg a yegg yàlla nañu fa yegg si jàmm ñu bëgg tam population bi yëpp ñu wér si jàmm ak salaam ñu continuer seen activité yëpp bi ñ bàyyi dara ñuy ñëw chaque jour di faju di teel dépisté wu pour mën a am la nga xam te ne faj gu wér gu jaar yoon. salaamaaleykum euh, maa ngi leen di maa ngi leen di baalu àq di leen baalu euh, man la Babacar Mbengue dëkk Déni Biram Ndaw noor euh, nekk président CDC bi nekk emploi génération foot bis bi li ko waral vraiment da di bis boo xamante ne li mu ëmb dafa bari. parce que génération foot euh, yamul ci sport rek da ci bolé social social bi nak mo waral lii euh, kii xalat li vraiment muy suñu directrice Marie Touré nek doomu président Madi Touré vraiment mo ci xalat euh, bi ma ooyee ñu waxtaan ci ñu né il faut ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy poste de santé bu Déni Biram Ndaw ñoo xamante dañ daan organiser chaque année. octobre rose bi vraiment ñu oo euh, waa poste de santé bi ah ñu waxtaan si ba tombé d'accord pour ñu organiser bis bi vraiment ñuy gërëm emploi nekk si poste de santé bi yëpp vraiment si taxawaay bi biñ si am euh, mari nag suñu directrice bi vraiment mu jël engagement yëpp engagement yi fi def yëpp mu jël tous les engagement ñu réunion si ak waa poste de santé bi réunion nañ ci ay yoonu yoon ba bis bi mën a oyof nii bis bi mën a taaroo nii vraiment ñu jëli nit ñi ci bis yi indi leen consulter leen ci gratuite vraiment ah mu di bis boo xamante ne vraiment bis bu ñu rafetlu la Génération Foot nag ah, vraiment muy président fondateur bi moom dafa gëm social moo tax domam bi mu ñëwee mu jaar ci tank yoy parce que fi tollu bo xolé dom ji mo gérer lu bari fi mu ni moy directrice bi motax bi mu ñëwee mu top jaar ci tank yoy jaar si tank social. parce que bo xolé social bi nga xamantene mo mo japp zone bi yépp dañ ko jël tek sama lox te gis na liñ siy def lu ñu wax ak lu ñu mën la wax parce que mom mi def social bëggul ku koy def ba paré bëggul di ko def ba paré di ko wax. moo tax yu bari maanaam duñ ko mën a wax bis bi nag liñ ci doon ut yëpp am nañ ko ci muy réussite parce que ñi fi ñëw gis nañ ci seen bopp gis ci seen bopp mooy accueillir nañ accueillir bu baax médecins yi toppatoo leen toppatoo bu baax consulter leen consultation bu aw yoon ba bi ñu ñibbiwaat ku ci nekk kontaan nga kontaante goo xamante ne sax euh, ñun daf ñu jëlee kaw. Masih ma ci gërëm may gërëm encore Murtala mi ma togal ni sama wet parce que tim da ci am taxaway bu mat seuk ndax luñ ci nyun ben, taxawee ñun ben taxaw na ci ñett vraiment kon amuñu fayam dañ koy gërëm di ko sant parce que lu génération foot lar rek mom day ñew tax ci rip kon lolu dañ la ci sante dañ la ci dañ la ci gërëm mais li mëna wax dal moy bis bi dal vraiment bis la bo xamantene dal daal nañ ci lool. jigéen ñi gis nañ ci seen bopp parce que da feebar boo xamante ne ah, feebar bu doy waar la kon nag ku ñuy ñëw jàppale ne dañ la koy faggal nit ñi 6 heures du matin lañ ñëw fii vraiment 6 heures du matin man bi ma ñëwee ci centre bi fekk naa fi jigéen ñi toog kon jigéen ñi tamit mbir mi yittal na leen soxal na leen fii dañu fees del gis saal yi saal yi feesoon na del baa yi fees del vraiment aw na yoon daal lu ñu mën a wax mooy bis bi aw na yoon bis bi aw na yoon génération foot nag may gërëm le président Madi Touré mention spéciale parce que lii yëpp tey moo ko waral vraiment parce que tey su doomam ñemee ñu taxaw def lii engagé ko moom moo si ne moo si jàpp moom moo si jàpp ah, kon nag moom amuñu lu dul di ko gërëm di ko sant comme li ma waxoon au début rek nitu sociale la social yi jaar si man di dem si nit ñi. man xam naa moom xam na yàlla xam na comme bëggul ñuy wax yenn social yi moo tax dafa am lu ñu mën a wax ak lu ñu mën lu ñu mënta wax vraiment mënuñu lu dul sant daal di gërëm ah yéen waa Impro nag tamit ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant parce que tamit gis nañ ni ngeen di jàllale si zone bi yëpp vraiment kon ah, macha allah daal gis nañ seen liggéey vraiment ñoo ngi leen di félicité di leen ñaanal yàlla affaire yi gën a yokk